mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi fii ñu neuvième édition ADL fii ci Tëngéej ba léegi ma taxaw ci box boo xam ne champion bi di nuyoo waaye nag dafa naa war ngeen ko xamal seen bopp champion nuyu naa la. maa lay nuyu borom Sunugal TV maa ngi lay nuyu baax di la ziar. borom Mbalme TV naka yow da ngay làqatu quoi. waaw xam nga li may faral di wax rek. Eh. Eh, ginnaaw bi ñu santee yàlla julli si yenent bi. Hmm. Eh, ñaanal suñu ñaari waajur yàlla yéesal yërmande seen kaw. sant suñu sëriñ sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim. di ñaan yàlla def jàmm Sénégal def si tawféex rawatina si élevage bi ñu ne. Hmm. liggéey bi ñu nekk tamit di si yëngu. de temps en temps mu nekk suñu deuxième passion à part xar yeeg hmm. élevage bi muy affaire audio communication audiovisuelle yi ñu ñaan lépp lu si nekk rek yàlla def si jàmm. laaxatuñu parce que li ñuy def li may faral di waare du si askan lañ ko doonee du si dara mais xar moo tax ñu koy def añoo mhm. bu doy waar bi dugg ci euh, gétt géew bi ñu ko euh, moo koy seet naka de mi ngi sa bokk kii kan la kii mooy la jeune rek comme ni ñu ko waxee <laughs> di xaru communicateurs yi ah di xanu ñi nga xam ne ñoo nekk di def euh, promotion élevage ma leen jël moom laa jël dëgg doole leen ko njukkal macha allah billaahi parce que dama ne ñun dañoo sonn si xar yi tul parfois da ngay yóbbu da ngay dem sax si xar éleveur di ko defal émission peut-être mu yaakaar ne yow benn simple. kii nga rek te fekk ne amaana. xar yi mu yor sax. wala yow xar yi nga yor sax yoru ko. dëgg la voilà mi ngi noonu. macha allah le généreux moom mooy kan fan la jugee ak euh, lan nga boole ba mu jur parce que euh, euh, ëppale na foire. waaw le généreux dama maa juddule yaayam. yaayu yaayam maa ko juddule. yaayu yaayaatam yaayu yaayaatam F4 F5 samay xaru jigéen la ci côté yaayam. mais nag moom doomu All Black la. All Black doomu Subeeru la. Euh, yaayaatam doomu rapido la rapido doomu jaraaf la ak madame Bitar madame bitaar nag euh, ak doomu Boy Séeréer la ak Marie Pierre donc mu bokk foofu te wax xar yooyu wax ay xaru qualité mu xar xar boo xam ne euh, li may faral di wax amul benn xar bu mu méngool si Birahim li mu laal si Birahim laal na cinq fois Birahim laal ay quatre ba trois fois Boy Séeréer laal Bitar laal ki nga xam ne mooy mais nag cinq fois yi il faut ma leeral ko si lu gàtt rek. parce que boo ko waxee day xaw a compliqué si dégg-dégg. voilà parce que All Black All Black bi nga xam ne mooy doomu Subeeru Subeeru am na Birahim. à travers Algor bi. All Black am na su euh, am na euh, euh, ki nga xam ne mooy Birahim à travers maamam bu maamam bu góor. Ah. ki nga xam ne tamit aussi première dame am na Birahim. bu séeré euh, bira euh, algoor bi tamit dugg na si moom à travers euh, Saalum Saalum. ak rapido maamam tamit nga xam ne doomu sëtu ki nga xam ne la mooy doom madame bitaar la mais madame Bitar kii moo ko juróon Marie Pierre Marie Pierre doom Birahim la. donc foofu rek fooy tënkee cinq fois Birahim. cinq

laq nga euh, euh, def boobu. waaw daaw bi may ñëw moom laa indi woon yaay seen yaay ak benn doomu update ay yooyu ñu doonoon ay famille yu deux ans trois ans. jëm quatre ans tuuti. léegi ma ne man chaque trois ans quatre ans damay renouveler sama cheptel. jëlaat ci pépinière bi. bàyyi leen ñu jóg moo tax ma bàyyi ma bàyyi pépinière bi ñu jóg. pépinière bi laa bàyyi ñu jóg ko mhm. mu ànd ak yéen ay añal. borom rob bu ñuul mi ngi tudd Dora. Mhm. Dora moom dañoo jël benn doomu ki nga xam ne. mooy euh, booy ya teg si benn doomu subéeru bu góor euh, mu jur benn femelle femelle boobu ma teg si maal bi ma exposé woon daaw muy xilaafa xilaafa doomu yaayam doomu ki nga xam ne mooy monsur la mhm. ki jig kii euh, kii mooy seex maal beneen bi si topp maa ngi tuddee la mignonne la plus belle la mignonne moom tamit maal bi ma exposé woon daaw muy xilaafa moo doolaa ñoo bokk benn pap macha culul bi moom dama ko recruter sam benn grand moom ma ko jox yaayam doomu Bénis la papam doomu Challenger Challenger doomu Galactique. Mhm. Béniseur yi daa fu mu nekk. daa élevage partage maa ngi cité enseignant laa dëkk HLM cité enseignant bu Tëngéej. mais kañ nga euh, ma ne la man. lu mu gàtt gàtt si mille élevage yi. def naa si vingt cinq ans lu ko mat. parce mhm. suma àdduna yëpp wala bi may xale ba léegi. lépp élevage laa si def. moo tax voilà depuis. ay si a yàgg na yàgg na trop yàgg trop mais euh, le généreux mi euh, fan nga bëgg a dem ak moom ak kañ nga découvrir que ni ban instant nga nga xoolee xam ne kii euh, champion lay doon xaar bi dès que mu juddu mi ngi juddu le 20 juin passé mu juddu ma gis ko mu yor ay cër yu extra mané ah ki de nuru na xar mais bob ma ngi doon benen jeune mal mais jeune mal bob la gënoon focus quoi ah, mais sam benn way wala sama benn kilifa mo ñëw xol ko jarul moy tur teuram ne ma daa xar bi de chef champion manaka me man xar bay laal wax pour nga xolal ma no gisee mu ne ma daa xar maa ngi nii donc yalla def ci lool barke ma téye ko bu am 4 mois ci la ka njëkk publier ma publier ko rek mu def benn tabac ma duggal ko ci quelques groupes rek oote oh, da ki ki fu ku ko moom ku ko mom ku ko moom ku ko moom xarukan la xarukan la xarukan la bon ñen ñi xamne man la mais man damay bon comme nuno di wax

dañuy xam xam xar mi wala du xam. non depuis lors ba aw ma si ma si yëpp jàmm. mais bon amin amin amin amin wér amin amin ba ko ci podium yi. amin parce que xar mu baax élevage dañ ko soxla. merci beaucoup donc loolu laay dëggal rek. que ni euh, xar la boo xam ne élevage moo ko soxla. xar boo xam ne dañoo am yaakaar ci moom. yàlla bu yàlla tas yaakaar bi am ci moom. ba di am mbégte ak kontaante si waa sunu gaal. di am mbégte tamit aussi si ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nekk si liggéey bi di si liggéey. di leen encouragé di encouragé sama bopp parce que ma leen encouragé sama bopp laa encourage parce que liggéey bi yombul. c'est très milieu bi ñun ñëpp xam nga ngeen ci job job bu naaj di xam nga man loolu laa gëm. gis na milieu bu ñu ko bokkee na naaj quoi te loolu laa gis si ngeen koy doxal. amul benn problème ñoo bokkoo li bëgg. ñoo bokkoo li kii bu xeexantee ban njëriñ la mbooloo mooy doole suñ jàppalantewul dimbalante kan mooy ñu jàppalante suñu deful benn bloc ñun suñu biir kan moo ñuy diyal donc vraiment ma am contenté di la féliciter aussi si liggéey bu rafet bi ngay def di féliciter ñëpp di am mbégte ak contenté si opportunité bi ma am may parce que ñun liñ koy am du bari souvent ñun ñooy voilà di defal ay nit rek donc loolu opportunité voilà da ngay dem ba da ngay faat sa bopp parce que nit de ay daa yaa yaa mais daa kii daa kii ndax te xar bi yaa ko après man affaire yi dafa may sax def équation léegi-léegi man leen man xar moo tax may def lii <laughs> <laughs> du si voilà mi ngi noonu donc merci encore fois yàlla na yàlla defal la jàmm defal ñu ko kontaan nañ trop. 77 mooy sama numéro téléphone mooy 77 401 84 73. mooy sama moo merci beaucoup merci merci.